des internautes yéen ñi safoo di seetaan étoile jamono saa su nekk ñu leen di wax ni wuy leen di abonné ndax chaîne bi chaîne d'actualité la tey nag journée de l'excellence bi nga xamante ni moo ngi doon am fii ci commune Joal-Fadiouth te ministre bi Khady Diène Gaye daal di ko fii teewe daal di décorer nag cent trente meilleurs élèves yi nga xamante ni ñoo dàq jàng ci commune Joal-Fadiouth moo xam ci secteur privé bi la moo xam ci primaire bi daal di waxtaan ak ñoom def ak ñoom discours daal di leen di wax programme projet bi nga xamante ni présenté nañu ko naka lañuy ñuy mën a def ba communes yi duñ ci def ginnaaw ci loolu nag mu daal di dajale mbooleem ay jox leen ay maillot jox leen ay subvention jàppale équipe bu dëkk bi mi nga xamante ni moo di Maama Ngéej commune xaar kanamu Joal nag daal di soppeeku démb ñëpp daal di ànd joxante loxo fas yéene topp ci ginnaaw ministre bi jàppale ko ñu leen di wax ni wéy leen di abonné ndax chaîne bi seen d'actualité la.

ngir gannaaw ba suñu doom yi paree seen année scolaire bii ñu génn ni am nañ ci ay résultats yi nga xamante ne jar na nawloo itamit foog ñu yëkkati ko ñu ñëwante ji nag pour leen ma bëgg a ci wax ji ma wax yéen ndaw ñi man ci yéen lay njëkkee ak képp kuy topp man samay discours di ma déglu fépp fu may dem man ci ndaw lay njëkkee ndaxte nag man maa nekk seen seen tata noonu ngeen ma ci réseaux sociaux yi kon boog man wax yéen lay wax ma len di wax ne lutax ma jël option te du tay la dox defoon nañ ko fi en 2022 mais xëy na amul en envergure bi mais je na fi ñu doon célébrer les meilleurs filles la won nak pas pa nak yaatal nañu nak je di ci duggal xale yu yi may wax ne que jang jang moy joxe xam-xam te xam-xam moy tabax rew malen di wax ne lundi bi ñu génne amagul semaine fee ca sikkat ca jam ñaajo ñi nga xamante ne nañu dënk réew mi mooy le président de la république Bassirou Diomaye jaxar fay ànd ci ak le chef du gouvernement Ousmane Sonko ñun doon présente li nga xamante ne moom l'agenda national de transformation Sénégal 2050 agenda boobu noonu am déclinaison à travers un master plan de 10 ans et un plan d'action étalé sur 5 ans Lolo nak bu ngeen di ak axe phare yu nekk ci biir agenda bobu noonu moy capital humain équité sociale et territoriale lañ ci jiital lolu di de lan mooy tekki ñom dañu jox importance le capital humain et l'équité sociale agenda bobu noonu ñu ko présenter comme gouy baobab

dafa nek li nga xamantene bala nga tabax dara dara dara ci rew ci askan ngay tabax nit ba pare te nit ki ngay tabax ci gone nga koy tabax di ko tatagal di ko gungé di ka yax bu mu magalé ko lolu mo waral éducation am ci patch bu ama am solo ñun nak suñu démarche ñun dañ ko inscrire ci suñu démarche yi nga xamantene ñom suñu njit muy le président de la république le premier ministre moo tax tey jii ba ñu waxee ne ñun dañuy ñëw ci commune bi sànq le premier adjoint au maire wax na ko ñun du ñu may tànn biir du ñu mbaxal euh, sama càmmiñ tamit maître Tall wax na ko du ñu def mais dañuy def li nga xam te dafay jëriñ te yéen xale yi xale moo jara lebal te xale moo jar a tabax ndaxte ëllëgu Sénégal ëllëgu réew mi ci seen loxo la nekk waaye nag ba loolu pour mu mën a am yéen gone yi foog ngeen xam buñ leen dënkee dara naka ngeen koy téye ñu la tegul ci yoon defuñu xam-xam bu wax ci yow bu ëllëgee itamit xëy na bu ñu la dënkee dara pour nga téye ko ni nga koy téye xëy na du yomb wala xëy na doo xam ni nga ko war a téye loolu moo waral ñun ñu jox importance éducation en tant que doomu dëkk bi yaroo fi màggee fi ci sama pooju maam moom valeur yu ma dugalal yépp yuma ma moy xam-xam xalé day wut xam-xam xalé laaju ñu la dépense laaju ñu la nga fay facture ndox laaju ñu la nga fay facture courant xalé luñ la sante moy na nga jang té lolu nonu yakana nek ñun ci suñuy croyance à travers toutes les religions révélées bu ñuy wax xalé dañuy wax xam-xam na xale ak képp ki nga xamantene guide religieux nga ak fo mënti jógee dañuy wax nga jangi xalé na ngeen jang na ngeen jang na ngeen nangu capacitation na ngeen nangu out connaissance lolon itamit na ngeen ci boole générosité moy yaatu waw na ngeen bannir l'égoïsme égoïsme baaxu manam sa bop rek ah ah na ngeen bannir itamit la suprématie na ngeen bannir itamit lepp lo xamantene ne ci suñuy valeur ancestrale ci suñuy adak suñuy cosaan yu ñu maam yu baax yi yaree woon sànq Ibrahima Diédhiou mu ngi koy wax nee na ci askanu joolaa ñoom ci communauté boo dem dañ daan teg ay sàq muy grenier yi lépp fa lañ ko doon def pour toute la communauté ba nga xamante ne ku soxla ca dëkk ba dangay dem ndànk chef coutumier bi wala chef de village bi tibbal la jox la nga yóbbu sa kër ci sutura kenn du la xamal dara lépp nag man dama bëgg nag yéen yen samay jarbaat yen samay dom yen lay waxal na ngeen baax na ngeen laa biir noo gën a yaatoo noo sa wërsëg di gëna a yokku te loolu yaakaar né que ce n'est plus un secret pour personne té nak ma bëgg ngeen royé ko ngeen royé ko ci njitum réew mi ngeen royee ko itamit le premier ministre le chef du gouvernement le leader du PASTEF Ousmane Sonko c'est grâce à sa générosité légendaire qu'au soir du 24 mars dernier, qu'on a pu opérer un changement systémique au soir du 24 mars dernier. waxul mom moom kese la waxul ne bu dul moom lépp mais dafa taxaw xol jiital intérêt Sénégal jiital Afrique jiital intérêt askan bi ñu dal di yaatal kon boog yeen samay dom yeen ñu may waxal lu ngeen di jang ngeen bëgg mu duggul ngeen bëgg mu am barké. na ngeen yaatal bu len ànd ak égoïsme ku ci am ñaari stylo wala ñaari crayon nga dem ci classe bi gis ne que sa camarade de banc bi nga toogal amut yëkkati ndànk benn stylo bi nga abal ko bu bindee ba pare bu wàccee dana la ko delloo waaye jarul ngay bind ne ko man kese bind va chercher un autre stylo non non ça c'est pas bien il faut bannir l'égoïsme il faut bannir la méchanceté te dama bëgg ngeen sukkandiku ci jikko yu mbaax yu fi mag yu baax yi bàyyi moy la solidarité moy mbaax moi amut na nga xajal sa morom bo yaat bu lo gis nañ ko yaatal bo amé ta sa morom amut jox ko loo xamantene itamit da mën na yàqal sa morom bu ko setan lolu may tabax nation lolu may tabax Sénégal te loolu noonu démarche bi nga xamantene la le président de la République le premier ministre ñom ci projet bobu noonu lañu sos bépp action bi nga xamante ne ci lañu bëgg a sukkandiku pour liggéey Sénégal te ñun ñii nga xamante ne ñun ñoo bénéficier wu ci seen seen confiance muy ministre muy directeur général ak ku mu munti doon ñun ñëpp ci logique boobu la ñu bindu te incha allah rabin ci noonu lañ cay àndee de di liggéey sànq nag dégg naa fi ay doléance waaw xam naa ne moom wax ji soxlawul muy àgg les communicateurs traditionnels bu may dugg si itamit am na ay ndaw yu ma fi intercepté jeunesse les acteurs sportifs les acteurs culturels soxalul woon sax ngeen di wax xam naa li ngeen soxla parce que man ti tamit ci Joal bii laa dëkk man Joal laa dëkk fii Joal ma defar ba ma baax xam lu fi am xam naa lu amut amna fi samay dom yu fiy jànge am fi samay jarbaat fi jangé muy ci walum sport muy ci walum culture xamna nek la pratique sportive jusqu'à présent peine à se développer ici à Jawa. Oui, parce que nak développement du sport et promotion du sport à la base faut nga am ay bërepp tagat kay yaram té lolu ñun xam que lolu amu fi manke na fi lu té na programme Pasteur sport bi comme man maa pilote piloter programme nous, ma mettre en avant

loolu la ñuy wax équité territoriale ak équité sociale te nekk une mesure phare bi nga xamante ne dafa bokk ci mission yi nga xamante ne man dañ ma ko dënk ñu ñëwati itamit ma di ko wax toujours balaa ngaa yegg sama kër maam ñu am fa lu mel ni le centre de lecture et d' animation culturelle au poste Senghor bokk ci bërëb yi nga xamante ne itamit defar na ma ndaxte dama daan jël sama kaye samay kaye génne sama kër maam dem toog foofu xool ci ouvrage yi toog nafar def samay recherche gis naa ne loolu itamit soxla na réhabilitation te inshallah allahu rabin man duñu wax ñun duñu wax ay duñu joxe ay promesse ñun annonce bi ñu def rek c'est des annonces techniques ñun dinañ ci liggéey avec les autorités locales yi nga xamante ñom ñoo nekk tay ji ci bop commune bi te fas accompagner tout projet de développement dinañ ci liggéey bu baax baax xol ni ñu koy réhabilité duñ ci yam nak duñ ci yam yem ndaxte ku wax Joal Fadiou Ngazobil spectacle yi fi wane yi fi jàll sànq wane na ko wax dëkku culture wax dëkku culte wax de cosaan bu ñu mënee am ti tamit benen espace d'aménage culturel ak un petit musée ci pour accompagner cette jeunesse à l'éclosion des talents et accorder aussi à la jeunesse sénégalaise de lieux d'expression itamit inshallah allah rabbi dinañ ci taxaw ànd ci avec l'équipe municipale qui est là ben affaire tamit dafa am nous nous sommes des républicains xam nañ ne que fay dem lié, ba lay da ngay avec les autorités locales qui sont sur place te loolu noonu bu desee ci man rek danaa ko respecter l'ordre républicain et les normes républicaines tonton Omar le premier adjoint au de déggal boobu bu baax baax nga ko madame la maire madame la maire on na wax nañu démb téléphone ne woon na ma ne bëggoon nañ teewee yëf yi tout tabafakal macha allah aussi je la remercie au passage pour son soutien et son engagement parce que depuis que j'ai été portée à la tête du département ministériel, elle ne cesse de m'encourager. Et nous discutons aussi sur beaucoup de projets et politiques publiques de développement concernant notre commune, Joal Fadiout, Ngazobine. Je maa dire que may wax ne yéen waa Joal yéen cosaanu dëkk bi ak ñi xamantene ñom la yalla boole sen suuf yalla tuddee ko fi ak ñi nga xamantene yalla dafa dogal sen fi ñun dañoo fas ànd ak yéen man bokk xool lépp li nga xamante ne loolu la Joal soxla wala loolu mooy métti ci Joal muy wàllum art muy wàllum culture muy wàllum sport muy wàllum éducation gis naa ne que Joal am na un problème hydraulique am na un problème d'assainissement ci fan yàlla ñëw naa fi dugg naa ci yenn quartier yi am na ay délégués de quartier yu ma jot a toogal waxtaan ak ñoom. Il woon a fi du matériel des motopompes, dans di koy teg ci coordonnateur du pasteur Sankouma Dramé moom itamit mu daal di koy le chef des délégués de quartier pour nous soulager un peu les souffrances des populations Nous l'avons gis nañ ko. te le ministre de tutelle qui nga xamante ne moom la ñu hydraulique walum assainissement te di ngeen gis incha allah ci fan yu une descente à Joal sous la houlette de l'équipe municipale pour mun a xool nu ñuy apporter des début de solution ndaxte gis nañ ne que euh, population yu bëri ñu ngi ci biir ndox ñi ndox mi métti na lool ci ñoom te yenn écoles yi sax su ma juumut ci dernière situation bu ma envoyé yenn écoles reprise bi demee gu fa woon noonu parce que ndox mi ba léegi dafa daal di de euh, di gërëm di sant itamit sama mbokk yi fi teew tey ndaxte na ku nekk am nga fi nga bokk waa Siwaaña maa ngi leen di gërëm leen sant ci seen teewaay di leen remercier waa Fadiouth man nag dama am fu ne tànk boo duggee Fadiouth boo duggee Joal boo duggee Ngazobil ba jàll Ñanda Ndofane ba Ngéñeen Njaaroñ ba Fadial ba àgg Joal Palmarin kon boog man mun naa taxaw écarter samay tànk nu ma l'AIC Renaissance, l'AIC Diamondon, l'AIC Teranga, l'AIC Château d'Eau, l'AIC Dego. Pratiquement toutes les AIC ont été représentées.